acca mi ngi noonu ñi ngi ak Ibrahima tey ba tey ci immigration clandestine ñu ngi ciy def euh, reportage Ibrahima moom tam war noo nettali li nga xam te moom moo euh, yoon bi Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax la bëggee mhm. jox sa waay waay acca tey ñu ñëw fekk leen ci tefes gi ngeen di football di kaf ak ree jàkkaarloo géej gi tey ñu nañu yéen ñii demoon ngeen ci nga xam te moom moo di immigration clandestine ñu bëggoon xam tey lan moo taxoon nga dem non réew mi dañ fay gisul liggéey rek bu buñ fi gisoon rek fi lañuy toog réussir luñ bëgg lépp na fi gis na fi gis nga li fi am xëy football waaw wàcc tafet nii soulagé duggaat tëdd nalaw loolu fi am fii rek temps bi loolu xam si lu ma si xam mais Macky Sall moo war a jàppale jeunesse bi rek góor jàpp ci góor jeunesse bi yëpp booloondoo xàccoondoo dóorandoo acca ñu jaww ci yoon bi yow fan nga déparé woon maa hmm? fu mu nekk Ndar daal waaw acca fii nga jógee dem daal waaw ba ngay jógee di dem gaal moo la yóbbu gaal moo ma yóbbu waaw foofu waaw léegi bëggoon nañoo xam gaal gi yow da ngaa da ngaa fayoon pour dem wala seen gaal bopp non dañoo paasoon pour dem waaw dañoo paasoon pour dem de d'accord tey mën nañoo xam ban jour yaa ngi fàttaliku ban jour ban jour ngeen tëbboon ñun ñu ngi tomb la le le dix neuf décembre. le dix neuf décembre. waaw ah. ngeen tëmb. Ah. Ah, moom loolu moom waaw di gis lu ne di nga dégg lu ne si gaal bi loolu mais amaana moom waaw ni moom loo bëgg lu nekk moom da nga ciy tarbe yow doo si bañ dara waaw. amaana loolu jaar jaara jaar doomu aadama. mais jotoon nga lan yàpp. acca léegi man bëgg naa nga expliquer ma yoon bi fi ngeen déparé ak fi ak lan moo tax ngeen teer Maroc géej gi moo yëngu rek moo tax ñu teer Maroc ma bu ko gisaasoon tey tey tey tey dañuy dugg ci gaal di dem tey dem leket bu taxawoon fii di dem du ma fi bàyyi mais yaa ngi dégg ñu naan am ñuy dee ci géej non ñun ragaluñu loolu ñun ay doomu jàmbaar lan parce noo rey ni lu rey moom buñ koy seen moom dañ koy daw songu hmm. dan tekk rek teral sunu yaay waaw loolu la am réew mi moom boo fi toogee moom amaana moom soo bëggee teral sa yaay rek du Sénégal njaay moo la koy may foo nga génne quoi waaw tarbiyu mais mais mais mais maa ngi dégg ñuy wax ci euh, am na ñuy wax naan géej gi dafa am ay tëmm am ay jinne ay lu ne ngay gis ak yooyu su am non leen rek géej gi amul dara waaw géej gi moom gars yi ñooy defar jeunesse bi rek bañ ñu génne te géej gi su boo àndee kay mool nag. Hmm. waaw mën nga am yoonu neex. mais est ce que nga dem ne yow mii di nga yegg si wàcc. tey jii nii tey tey su si gaal damay am confiance damay àgg Europe sama gëm-gëm lay doon. billahi mais est ce que amoo déception bi ngeen teree Maroc nga wàññeekuwaat. non ama da ngay ñëw bu gënee baax rek ñu xaañaat dem de. Mhm. barki noo rëy ni. wallaahi mhm. léegi gaal gi est-ce sa lekk bopp yow yaay gaal gi maanaam ambiance gaal gi. non rek nag trois cent mille ngay pass si la xaalis bi yëpp di génne waaw si lañuy jëndee ay lekk ak lépp. trois cent par personne waaw. mooy loolu kenn ku nekk corriger suñ corriger jënd essence ak lépp pass bu gaal gi. génne. ñaata personnes ñoo nekk ci ay trois cent. trois cent personnes. trois cent waaw. xanaa gaal gu lay doon. laahi. mais mais mais mais est-ce que bi ngeen demee ba yegg Maroc am nañ jafe-jafe ci gaal gi. non gaal gi moom bëri woon ay jafe-jafe moom tey nañ si jaamu. laahi. mais tey jii nii nii nii nii moom lu may lancer jeunesse bi moom. waaw ku mën a mbëkki moom duggal ci a dem rek demal boo amee gëm ah waaw dañoo bëgg a sunu suñu waajur de barki noo day ni mais amaana moom Sénégal moom mënuñoo may loolu quoi nga gisuñu fi loolu noonu waaw. mais yow yow yow yow boo gisoon tey gaal di dem. non tey jii nii léegi duma xaar sax di dem gaale léegi laa xaañ dem ragal ma fi ma jëm. alhamdulilah confiance na boo demee di nga yegg. dama yegg man sama ñaanu yaay laay tiitaroo fépp. mais est-ce que est-ce que xam nga ñoo xam ñoo xam te ni euh, doon nañ dem Espagne dee ci géej gi. non non man ma si ay xarit yi si dee ndox mi de. loolu moo tax nga am fit gaay. Ah, waaw waaw noonu la adduna moom bàyyi loo gëmul rek doo doon sëriñam quoi loo gëm rek amaana da nga si di nga xuus lu bëri boo ko gëmee ne lii nii su ma su ma demee dama koy am soo ko gëmee lu ne danga koy am. léegi ban message ngay jox jeunes ah, ku mën a dem na dem de fi amul dara barki nooree nii fi ku fi toog moom Baay Faal nii nga fi toogee nit xalaat jëmale ginnaaw suba li nga fi am. wàcc tafes ndékki xëy tëdda si lale liggéey amatul Sénégal. ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi lay fay garant bu baax. acca tur la. man presse laa tudd. ñu mën a wax ci immigration clandestine. immigration bi ah. Hmm? waaw ah dëkk bu baax dafa de. waaw da ngay toog fii doo moom isaan bi moom yaa nga xam ne ma gisoon gaal la ma siy dem. Hmm? de. ah waaw ragaloo. ragaluma lool boo rek laa bëgg a dégg man. boosaafiri bi rek. luy loolu. àgganaa bi. <laughs> waaw. mais sa waay yaa ngi dégg ñu naan gaal si dee ngeen nit moom foo war a dee rek ngay dee moom. Ah, parce que bu doon dañuy xam ne bu ndemee dañuy dee duñ am fi du yëg si kaw gaal dinañ dem waaw dee moom yàlla nga ma gisoon gaal la si yëg dem. mais yow yaa ngi dégg ñu lay expliquer yoon bi ni mu méttee. non méttewul sax ñu ne moom lan métte dal nii. donc ñu nekkul moom lay dal nag waaw. léegi euh, tey euh, bëgg nañoo nga expliquer ñu tey lan moo war a initiative tey nga jëw nga jël ses responsabilités ñu ne la géej gi boo da ngay dee ngeen yow nga moom yàlla moo ko yor boo fi toogee da ngay mbaal di teer di mbaal di teer chaque jour dem géej di teer moom dafa metti te bu géej gi amee jën moom du fi mën a toog mais fii sax amul jën mun la fi mën a téye nga fi toog di mbaali. dem Espagne moo tane quoi moo tane billaahi te maara bi daa dëgër de. est que dégg nga ñoo xamante ne dem nañ mais dañoo des si géej gi. non moom gisu man loolu moom dama koy dégg mais yàlla xam na ne moom loolu manuma ragal lool. bañ maa dégg xam nga ne ne dem na des si géej gi. non non daa dem nii ragal na lool. Hmm. waaw. jaajëf ñu ngi